ñu dem déglu kàddu yi nga xamante ne kii di Assane yëkkati na ko ci. kooku muy DJ sidat asan Mesre mi ngi noonu comme ni Assane di def soo bu def kooku Sadio gu toog wax xalaatam ci groupe boo xam ni euh, bon am nga ci ay xalaat tey jii lu kenn lu ñu bari miinul ca biir groupe ba Assane wax xalaatam Assane Gueye Sidaat génn en tant que employé def ci moom itam ay xalaatam loolu la minul miinul woon la DJ sidat def. Euh, sama bu sidaat de dafa juum juumte bu rëy mhm. ba pare def erreur bu rëy hmm? waaw waaw bàyyi ko mais taawi alay bay dafa juum ba pare def erreur mu mel ñaar wala dafa garaawal mel ni ñaar la def dafa juum def erreur il faut gën koo ngandal il faut gën koo ngandal <laughs> erreur bi mu def dafa garaaw dafa garaaw indiwaat nga ci beneen waaw garaaw. xam nga erreur bi mu def mooy El Hadji Assane kilifaam la. doon directeur am. waaw. jox ko ay émission mhm. di ko fay weeru dee. Mhm. di def ay émission moom moom moom miiri waa ji El Hadji Assane Gueye di def ay émission mhm. El Hadji Assane wax xalaatam wala boog wax gis-gisam. moom mii di sidaat am na émission. mënoon naa bàyyi bay def émission am si animation mu wax li mu bëgg a wax daani maa ngi remercier gouvernement bu bees bi wax li mu bëgg a wax tudd di tudd El Hadj mais bu fekkee ne yow animé woo defa dara El Hadj Assane wax ay xalaatam nga daal di ñëw def sa vidéo tontu El Hadj te du yàgg moom mais El Hadj Assane mu wax am na si droit. mais yow it boo dee wax say wax nga am ci droit nga taxaw tey ji El Hadj Assane nag réer nga nag. non non réeru ma maa ngi wallaahi réeru ma. non non réeru ma. yow léegi nu Assane. non non réer non da ngaa réer. non da ngaa réer tey non réer. wallaahi réeru maanaam nu Assane mën amee droit te kii amul droit. waaw moo tax ma wax la Assane Gueye day kilifaam. waaw. am na am na nu mu doon demee bu amutoon émission da koy woo téléphone allo El Hadj Assane na def yaa ngi si jàmm El tey moom juum nga. mën na ko tant que téléphone mën na ko wax téléphone. ndax ñoo nekk muy kilifaam kon waru koo corriger ci mbedd mi. Hmm. waru koo corriger ginnaaw nag am na émission bu El Hadj Assane exemple bu El Hadj Assane ne lii baaxut lii baaxut lii baaxut. waaw kon waru koo corriger ci eh, eh, kii bi. ci émission man damaa bëggoon mu corriger ko ci émission moom. ah waaye léegi comme tudd nga baatu corriger kon Assane dafa juum. non non Assane gis-gisam la wax. léegi kon lu tax nga ni corriger. non non moom moom mii daal dafa gis ni Assane ni mu wax waru ko wax mu corriger ko ci mbedd mi. ah wuro ko corriger ci mbedd wuro ko corriger ci mbedd wa mais dama ne kuñu corriger rek moy dafa dafa def erreur kon asani dafa def erreur asan gay xam nga man na la corriger te djumo del kon ko tuddul corriger man sama gis gis na ko tuddul corriger loolu asarnement la kon da ngay asarné ci sama kaw asarnement ak corriger bokku ñu de asarnement ah, may mbagnel deggal li mom nit ko bañ lu mu wax la nga asarné ci kawam comme asarnement bokku la nga bañ ha ah, eh. ah, kay a ci dem asarné ci kawam mais li ma la bëgg leeralal da sonay bu ci gàttal asarnement du du mbagnel wa li ma la bëgg leeral fi may tambalé wa moy si daat dafa ngay tàmbale wala fi ngay jeexale lima tambali ma wax lepp la jaxaso di <laughs> te lima bëgg yan si daat il faut ma yan ko ko te yaa ma bàyyiwut ma yan ko ko te dina ko yan mënut rek non non parce que day limay tambalé mom moom. yow <laughs> da nga réer alors manam asal tay da nga bëgg dal ci ah. manam man lima jang ci yow. Ah. bëgg nga dal ci sidat té amoo ay armes. boo ci yalla ma andi argument yu lèr non mais ci yalla kay. man laaj laaj mo fi indi. wa da nga laaj nga ba paré rek da nga may may ma wax la. <laughs> nga nopp may ma wax la. ajëdeewal. siddaat dafa juum waxoon nga ko <laughs> damay tàmbaliwaat. ah déedéet déedéet fekal non Assane nag da ngaa bëgg dal ci sidaat te amoo argument dafa juum waa dafa juum bi mu def mooy. <laughs> Alaaji Assane Gueye <laughs> kilifaam la. ma ñëw rek di directeur di ko fay weer wu dee. jox ko ab émission. ci lépp waxoon ni ko émission bii heure bii la ba heure bii moom bu fekkee dafa am ak moom règlement de compte na dem bureau bu fekkee dafa am lu ko naqari na ko woo téléphone. mais El Hadj Assane mënut a def émission am wax li nga xamante ni moom la gis si penc mi. moom si daat mu wadd fee rek jël defal ko vidéo. wóor bi ngay dal ci El Hadj Assane Gueye li tax man mbokkuñu man na maa dal ci kawam. mais kii dalul ci kawam dañu ko non dafa dal ci kawam da nga am émission boo xam ne wax sa xalaat la man damay joxe sama xalaat non non wax sa xalaat na dugg téléphone na dugg. non dégg pourtant leer na lii de yow déglu nga vidéo bi déglu naa ko ba mu jeex. nee na façon de munoo wax ba sidaat juumul. waaw Assane kay kilifaam la. non jour juumul dafa def erreur. non lépp la boole <laughs> lépp la boole mi ngi mel ne Alaaji Sa Njoogu mii toogoon def fogisam bi émission am. ma jël sama sama téléphone dem sa mbedd ma di corriger El Hadj Sa Ndiogou naan ko pourtant de yow li nga waxoon nii nangam nangam jëru ko naa toog naa bàyyi ba toog sama émission. su ma toogee sama émission bu ma bu fekkee ne Sa Ndiogou nee na woon lii daa weex lii daa xonq lii daa ñuul di gis gisa may bu ma toogee ma daan ni waaye lii di xonqut lii weexut lii ñuul te du ma tudd Sa Ndiogou. yow yow def nga lu gën a garaaw. waaw. waaw man man laa la wax. man naa ko def. yow dama ne laa diglul mais si man si daal laa wax yow diglu ma yow. boo joxe joxe ah, du ma fa jaar jox hélas da nga ko jox kay. moom nag nee na siddaat dafa juum ndax sa kilifa kilifa den kenn du ko corriger ci mbooloo kenn du ko corriger ci pénc mi bon euh, siddaat li mu wax am na droit wax ko waaye fan la ko waxee ak kan la ko wax tey. Tange mën na def émission mooy suñu chef ma gis ni émission bi dafa am lu bari lu ci manqué walla wax na ci lu mu warta wax est-ce que du danaa bàyyi ba ñu toog saa su discute ma wax ko ko déedéet dama koy fekk ci buroom ni ko DG émission bi kat seetaan naa ko waaye li nga wax fii ak fii ak fii daanoo ko wax kon est-ce que boo ko waxee du du jur li ak lii lii ak lii su may sanctionné su ma dul sanctionné ci sutura laa ko ko waxee te bu dee nit la xam na ne nit dafay juum ku nekk am nga xalaat liberté d'expression dafa am dina ma ne ah yow loolu nga gis aman ah, de gisee wu ko noonu kon nii ak nii nii ak nii la vous passez à autre chose mais si daal li mu wax man naa mën naa jàpp ni ayut yow mu may seetaan mën nga jàpp ni ayut mais ki mu ko wax kilifaam la biir RFM moo mën a dàq moo mën a recruter kon kooku am na lu mu koy wax ak fa mu koy waxee rek nit ku nekk nit ga day gis bopp man nag je dis pas que ànd naa ci li Assane Gueye def wala ànd naa ci lu si wax on dit les choses telles man ni ma ko xalaatee laa ko nekk di wax dama ni dañuy naan sa xarit sax bu nekkee ci mbooloo danga koy défendre boo leen wéetee nga wax ko dëgg nee nañ sa jabar danga koy défendre ci mbooloo boo leen wéetee nga yedd ko waxantuma naa nag sa kilifa àdduna di leen déglu di leen seetaan di leen bàyyi xel boo amee ay kàddu yoo ko yëkkati rek euh, muñ bu nekkul muñ kat dëgg dëgg dëgg dëgg wala bu amul ci côté bi ñu koy bës naan ko muñal gérer situation dafay daal di révolté parce que nit la nit bu xalaat jeexee ci moom rek benn animal day ne ci moom benn rage donc Assane Gueye peut-être def na lu mu def ba pare après mu mu mu mu mën na am sax fu mu nekk nii rëccu na ko ndax ku baax la man xaw ma ko mais xam naa ko ko xam te man nit ki ko xam bu ko ne bu ma newee ku baax la rek noonu laay àndee ak no foofu laay jàpp ba keroog may gis leneen man je comme ça je suis très mais je fonctionne comme ça diw dafa baax xaw ma diw boobu noonu yow yaa ko xam te nee nga ma dafa baax njort bu rafet laay am tout court Assane Gueye dàq na Sidaat parce que Sidaat da koo corrigé ne ko li nga wax nii kat ci jamono ma ki waxoo ko woon mu daal di gis boppam donc sa kilifa am na loo xamante ne doo ko ko waxee ci pénc mi xale sax doo ko ko wax ye doo ko wax yenn yi devant tout le monde waxantuma laa sa kilifa sénégalais nag xamuñu gëdd kilifa xamuñu ko donc assan Gueye li mu def peut-être moom am na si justification japp nañu waru kon ci dat mais sa kilifa kenn du ko corriger ci pench kenn du ko def da ngay xaar ngeen wet nga wax ko wala caméra yi fay micro yi fay nga wax ko li ngay wax des fois patron ak employé yi xëccoo xuloo ŋaayoo xatarayu mais bu liggéey jotee du feeñ ci ñom du feeñ ci ñom donc ça se passe comme ça ndax digënté ñaari ñoo gis euh, wax ñaak xulo mën ta ñaak mais est-ce que sa patron boo toogee caméra yi tàkk micro yi tàkk nga koy corriger di ko wax yéen nii bu dee am na sañ seen dàkk la dalay dàkk jarul demal maa ngi ñëw sax am na patron yoo xam ne moom du ñu mayee dara moom piip ñu ne la doo amul leneen donc mu ngi noonu